te nañ nekkal yàlla. te it nañ nekkal yàlla. te nañ ko wéli te yi. te nañ dayo seyru amul dayo. yàlla amul dayo seyru amul dayo. kon nag. kon ci sëriñ. boo dikkee ci sëriñ. bu la bëgg a jëriñ waxuma bu la bëgg a jëriñoo. sëriñ bu la bëgg a jëriñ. waxut ba la bëgg a jëriñoo nag. dafay bëre ba day bëre moom sëriñ ba. da yow mi ko dikkal nga jeex tàkk ci yàlla ndax feeg jaam jeexut ci yàlla ndax feeg jaam bi jeexut ci yàlla ak bokkaaleem daña gut fokk nga jeex ci yàlla pour mucc ci bokkaale fokk nga jeex ci yàlla tàkk soog a mën a mucc ci bokkaale fokk nga jeex ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fokk nga jeex ci wa sallam lu ko mooy lu mooy loolu ay maqaama ngay ñëw ci gannaaw ay maqaama ngi ñëw ci gannaaw sa sayru te sayru bu matee ba nga delluwaat ci zaatu bu matee ba nga delluwaat ci zaatu bu fekkutoon nga jeex ci yonent dootoo xam ci yonent bu fekkutoon nga jeex ci yonent dootoo xam mukk kuy yonent te ku xamul yonent doo jotee yàlla dara te ku xamul yonent boobu doo jotee yàlla dara mooy buntab yàlla ku fa jaarul doo dem loolu moo di buntab yàlla yonent bi mooy buntab yàlla ku fa jaarul yonent bi mooy buntab yàlla ku jaarul ci moom doo dem dañ bëri ba nga jeex ci sëriñ bi na na nga bëri ba jeex danañ bëree arif yi sëriñ bi sëriñ bi la bëgg a jëriñ dana bëre ba nga jeex ci sëriñ bi sëriñ bi la bëgg a jëriñ dana bëre ba nga jeex ci sëriñ bi ndax moom itam ndax moom itam maqaama yi ngay yóotu si maqaama yi ngay yóotu si bu sa sëyru taxawut bu sa sëyru taxawut da nga mujj boo jeexu doon ci sëriñ bi doo xam ci sëriñ bi da nga mujj boo jeexu doon ci sëriñ bi doo xamante kuy sëriñ lii moo tax de looloo tax de seen njël yéeni sëyru seen njëlbeen sayru. ñu ngi leen di yitte. boo jeexalee. boo jeexalee. te ci melo ak ci yi. ak tuddi yàlla yi. ak tuddi yàlla yi. te jaar ci xaybu yi nga war a jaar. ba jaar ci xaybu yi nga war a jaar. dañ lay jëf bu xaat yoonu ñaareel nga dellu ci faatu dañ lay jëf bu xaat yoonu ñaareel nga dellu faatu day fekk nag a am dara lu am lu ndax fekk nag dëgg dëgg loo xam ne du mën a xam mukk lu may jëm yàlla ji te nekkuloo ci fanaaw te kat taxul nga nekk booba ci fanaaw waaye da nga xam ne dana nekk ko rek waaye dana la wóor dëng ne dara nekkul waaye du tax nga fakk yonent bi waaye du tax nag nga fakk yonent bi ci melaw yàlla bu njëkk ci melaw yàlla bu njëkk du tax nga fakk sëriñ bi du taxit nga fakk sëriñ bi ndax melo yàlla la ndax melo yàlla la waaye nag dootoo leen gis mukk waaye nag dootoo leen gis mukk de dootoo gis seen jeexit dootoo gisit seen jeexit jëm yàlla ji rek ngay gis jëm yàlla ji rek ngay gis ñoom boo leen gisee jëm yàlla ji ngay gis ñoom ñoom boo leen gisee jëm yàlla ji ngay gis ci ñoom ma ne ci sama njël benn sayru bàyyi mu ne ci njël benn sayroom am naa di bu yàgg di ne man daal xam Cheikh Tidiane mën a jaar ba gën ma am na diir bu yàgg di wax ne man daal dëgg-dëgg xaw ma ko Cheikh Tidiane mën a jàpp dëgg ma. ba nekk sama sëriñ. ban ba mën a nekk sama sëriñ. gannaaw ba nag la ma ko yàlla xamal. gannaaw gi nag mu ne la ko ko yàlla xamal. ma ne moo mooy sama waasitatu ci ci ma àgg. mu ne nag mooy waasitatoom kon ci fi mu àgg. bi mu nekkee sama waasitatu rek wasaatatu boobu la ma. bi mu nekkee waasitatoom rek. wasaatatu boobu la ma tuddee ba nekk sama sëriñ. wasaatatu boobu. moom la ko tuddee ba nekk sëriñam. xam ngeen ma jóg yàlla dana koy jay lool ci maqama. xam ngeen ne ma jóg yàlla dana koy jay lool ci maqama. te dëgg rek la wax. te dëgg rek la wax kat. ndax ku nekk ci téyeeb yàlla bi nga xam ne mooy lépp moom lépp. ndax ku nekk ci téyeeb yàlla bi nga xam ne mooy lépp. te moo moom lépp. bu feeñ bu la feeñoo. bu la feeñoo. wala na lépp lu ma am yow laa ko may. wala na lépp lu ma am yow laa ko may. da ngay wax ne yàlla may na ma lu mu mës da may kenn te dootu ko may kenn da ngay wax ne yàlla may na ma lu mu mës da may kenn te dootu ko may keneen nag loolu maj soog dana koy wax loolu maj soog dana koy wax ku ko dégg defe ne mustahil la ku ko dégg defe ne ndax loolu dafa jomb ñi xamut defe ne karaama yi jagoo benn sëriñ la ñi xamut defe ne ndax ne karaama yi benn sëriñ jagoo la fekk maj soog bu ne jaar na foofu fekk maj soog bu nekk jaar na foofu maj soog ne taxaw na taxawaay boo ne na ko jox na ko lu mu mës a jox kenn te dootu ko jox kenn maj soog bu taxaw na taxawaay boo xam ne wóor na ko ne yàlla jox na ko lu mu mës a jox kenn te mësu ko jox kenn. tëjëliyaatu yàlla yi. tëjëliyaatu yàlla yi nag. xaarifina yi dajeeg ñoom. xaarifina yi dajeeg moom. ku nekk tëjëli ba nga dajeet kenn mës a dajeeg moom te kenn dootu dajeeg moom. ku nekk tëjëli ba nga dajeet kenn mës a dajeeg moom. te keneen dootu dajeeg moom. te terewul yàlla kenn la rek. te terewul kat yàlla kenn la. moom la alquran di wax naa wa taral jibaala taxsibuhaa jaamidatan wa hiya tamurru marra saxaab yaa ngi janoog doj yi mu ne yaa ngi janoog doj yaa ngi defe ne dañoo taxaw yaa ngi defe ne dañoo taxaw te ñu dox dox bu gën a gaaw sax bi niir yi dox te ñu dox dox boo xam ne moo gën a gaaw dox bi niir yi dox ci kaw foofu ci la aarif di xamee ne foofu nag ci la aarif di xamee ne jëmm ja bàyyeekoo néegam ñëw fii ci jotaay bi jëmm ja bàyyeekoo néegam ñëw fii ci jotaay bi ak bay ñibbi bu ci jotaay bi tasee du benn ak bay ñibbi bu jotaay bi tasee duhul benn te jëliyaat yaa ngi wéy rek te jëliyaat yi daal mu ngoog du ma yàlla la feeñu ci kii te du duhut ne yàllaa la feeñu ci kiiyam. benn feeñu ko wéy na. mu feeñu xaat la ci. mu feeñu xaat la ci. bu ñaareel bi du bu njëkk ba. bu bi xam nga kenn lañu bu njëkk bi. yàllaa feeñu ci baay bi. yàllaa feeñu ci baay bi. moo feeñu ci doom bi. moo feeñu it ci doom bi. tëjaliyaat yi bokkul. xam ngeen ne tëjaliyaat yooyu day bokkul. loolu tax ba doom lu mu ñu ñu du bàyyam xam nga moo tax doom lu mu ñu du ñu du bàyyam fokk mu xam ay mbokk bokk ndey bokk bàyyi. ay mbokk bokk ndey bokk bàyyi fokk am lu ñu wutee fokk rek nga lu ñu wutee ndax tajaliyeeg lu tax tajaliyeeg dañoo bokk bokk dañoo wutee mbooloo mi génnoon ci néeg yi daje fii mbooloo mi génnoon ci néeg yi dikk daje fii wéy nañ bu yàgg yàgg yàgg yooyu mbooloo dem nañ bu yàgg ñeneen ñeneen a fi nekk ñeneen kat ñoo fi nekk bu jotaay bi tas ñeneen a fiy jógee bu jotaay bi tasee ñeneen a fiy jógee ci àq tajaliyaat ci wàllu baatin kay ci àq tajaliyaat yi ci wàllu baatin waxuma ñi ñu way nag di gis lu may duñ gis lu may lenn waxuma ñi way nag nga xam ne duñ gis lu mooy lenn. duñ gis lu mooy masaayir gisuñ dëgg-dëgg gi. duñ gis lu mooy loolu. ci kaw loolu nag. lépp. lépp. lenn li la. lenn li rek la. lenn li mooy lépp. lenn li itam mooy lépp. ca asal ba ca abat. asal.